asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fii ñu taxaw nag moom mooy buntu Leewtoo Leewtoo production kon mu ñu ko waxee Pape Thialis fii la ne dañu dégg nag wala ñu xëy gis ci journaux ñu ne mu ngi dox diggante a ki nga xam ne nii mooy Balla gay ak Boy Niang yaa ngi dégg olof nag nee na ah waaw am na nu ko olof waxee daal dañuy dugg laajte ci kër gi ndax ñoom dañuy dox combat wala doxuñu komba yàgg. lépp ci lewto la maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Babacar. Lukaar ah. waaw Lukaar waaw. infographe. infographe waaw. tey moom dañu xëy rek comme ñëw nañ dégg que ni seen kilifa dañ ko dégg si benn combat ñu bëgg laaj ba xam ndax dëgg la wala du loolu. Euh, Pape Thialis. mooy combat. Euh, Balla Gaye 2 Boy Niang bi. Euh, waaw man am na yu mu ci dégg mais man tey maa ngi xool surtout Leewtoo bi. gis moom mu def démentir ne carrément moom nekku si waaw. bon lay comme comme moom officiellement loolu la wax daal. loolu lañ mën a jàpp waaw. mais lépp ci moom lay gën a leere kii moom mooy Massar kii xam naa ko bu baax a baax Massar maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar man tamit. taxawaay bi fii yow sa sëru lan la fii. man euh, mooy topp sa gannaaw rek waaw topp seen gannaaw euh, parce que yéen yéen yor liggéey bi. donc euh, di leen jàppale di jàpp di ñuy jàppalante quoi. mais dañ mën a gis Thialis Daxana pour laaj ko ci information bi ñu dégg tey ci journaux yi. ah waaw waaw loolu moom su ngeen ko deful sax euh, defu leen yoon defu leen seen liggéey parce que moom mooy ndeyu mbili bi tamit euh, war ngeen ko mënu laaj mais lu wër bu woon mooy Leewtoo dafa def loo xam ne kenn def gu ko woon après ñu bëree ngi toog di ko xaar nag yoon la ñu duggaat ci affaire yi wane waat tuuti suñu bopp waaw jërëjëf tey rek fii defe naa ne moom fii moom xam naa ko fii mooy rédaction bi moom rédaction bi tey daa xaw a kii sax gisuma ay sa fay ah <laughs> biram rek laa fi fekk ak Mansour ak Ndeye Coumba Fall Ndeye Coumba maa ngi ngi lay fay Babacar. tey dañu xëy am ñu bëgg laaj parce que sénégalais yi ñoo bëgg a xam te Leewtoo dafay nekk moo tax ñu ñëw seet si Thialis ba xam day tëgg làmb rek wala tëggul làmb. seet si Thialis xanaa si kër gi nga bokk di. waaw waaw mais waa Leewtoo maanaam internet yi ñoo ko seet si ndax man internet yi laa fi nekkal man. Ah, loolu am na solo bonk euh, ñu ngi nuyu waa Leewtoo mbokk internet Leewtoo TV yëpp donc information comme li ñuy xëyee rek gis ko ci sunu làmb donc bu ñu xëysee li ñu nëkk def mooy yëfu journaliste rekk yéeg fekki caal si bureau. maa ko maa lay fay. stagiaire nga dégg naa fi stagiaire lan caméra wala film wala infographe. lépp laay def. photo filmé infographe lépp laay def. adrien ak waa gaal ga boroom <laughs> borom Ngunjaan séeri ndaag maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay dellu ziar Babacar. am nga jaam waa ñu ngi sant yàlla bu baax tey muñ. a ah, ren de daa mel ni léew soo gaa yi nañ da ngeen a taxaw de maintenant at ngeen fi ñëw daal mais mel da ngeen ko bëgg a tëgg benn euh, nu ko olof du waxeeti sax tëggum dënd ak sëmmiñ neex benn naqari benn. lu xew tëgg benn combat benn année rek ñëw bëgg a taxaw da ngeen di tëggaat wala tëggu ngeen ci lu gàtt biram am ñu yéene tëggaat. am nañ yéene jël saison bi léppi combat li amateurs yi bëgg ñu dox ci waaye nag ci kaw mbër yi raisonnable rek comme ni ko waxee suñu déchet bi mbër yi nañu wàññi seen cachet nangoo fayeeku loo xam ne moom moo jaadu ci ñoom bañ a xëcc foo xam ne dafay sori du trop ñu ngi lay bégg bu baax Fall Fall tey duma bàyyi kenn tey moom il faut ma def ko Leewtoo spécial rek parce que itam maa ngi lay ziar. maa lay looloo ziar am nga jàmm ba. sant gu wér kay. Fall caméraman Fall <laughs> allah. gis nga ne maa lay ziar bu wér Baba. tey de seen DC bi lañu la internet yi seet si ndax man internet yi may yónni rek pour bëgg xam information ndax day dox Boy Niang ak Balla Gaye wala déet. waaw loolu dañu xëy tey gis ko ci information yi comme ni ko gars gisee yëpp mais dafa mel ni loolu wóorul wóoragul ko mm-hmm. bon xam naa peut-être bu ñu moom dina si leeral bu baax quoi mais comme ni ko gars yi gisee ñun noonu aussi lañ ko gisee quoi. kontaan ba tey ci suñu investigation rek wala laaj bu ñuy laaj bala ñoo jot ca lis xam naa dina bëri ñu ñu parce que foog ñu wan gaa yi tey xëy na ñu nekk Leewtoo bëggee nañu soxna si. maa ngi lay bébee bëggee Babacar di la nuyu di nuyu sa caméraman yàgg maar. Aïda Diouf ban fonction fii si Leewtoo. Aïda Diouf secrétaire Leewtoo. tey ñu koy gis ci journaux que ni Pape Thialis a ngi dox Balla ak booy Niang yëg ngeen loolu. waaw yëg nañ ko parce que gis nañ ko tey ci suñu làmb liir nañ ko. dangeen gis xibaar bi ci. da ci sunu làmb wala da ngeen a yëg ne da koy dox. non dañu gis xibaar bi suñu làmb. mais yëgu nañu que da koy dox. Hmm. non non yëgaguñ ko. daal buñ ci bëggee am lu leer. il faut ngeen dem ci kaw gis euh, Pape Thialis hmm. suñu DG moom dina leen jox euh, leeral yi ngeen bëgg am yépp incha allah maa ngi leen di bëggee bu baax. de hmm. bonnes journées. parce que xibaar moom boo ko bëggee wala lu leer. Euh, il faut nga dem rek fi nga ko war a mën a amee maa ngi lay ziar kilifa gi Sédhiou ah. Babacar doole ziar nuyu naa la nuyu euh, yàgg maar. Sédhiou dañu xëy tey gis ci journal que ni wala yow sa balaa may dugg foofu dama lay laaj lan nga yore fii Leewtoo production. waaw Leewtoo maay maay responsable événementiel bu Leewtoo euh, Leewtoo production teg ci maay responsable logistique aussi fii ci Leewtoo production. ñu gis sunu lamb kan yi ngi dox combat Balla Gaye 2 Boy Niang ñu bëgg a gis Pape Thialis am ci leeral mais da di balaa ñoo dem yéen ñi ne ci kër gi di fi liggéey il faut ñu am ci seen ay avis moo tax ñu ñëw laaj la sa avis tamit ci loolu bon je man comme ni ko gars waxee ci ce matin la yow xool euh, euh, presse bi gis ko ci mais ci lu ma xam ci lu gàtt ba léegi Leewtoo production contacté wul benn mbër par rapport ak saison wu 2019 2020 parce que pour dire ba léegi Euh, kii guñu suñu licence renouveler guñu suñu licence pour euh, saison deux mil dix neuf deux mille vingt bi. waaw hmm. incha allah waroon naa dem keroog mais dafa am euh, ay ay kii nu mu tuddati ñambe moo xawoon na jàpp loolu moo tax renouveler wuñu ko woon mais dem naa fa ñaar ñett yoon mais mooy loolu quoi. Hmm. kon Sédho la ñuy wax moom mbokk joolaa la jaamu séréer ah Sédho chrétien bu bëgg sëñ Saliou du noonu la demee. ay taalibe sëñ Saliou Pire. <laughs> ba tey rek li ma la waxoon rek xam nga tey moom faw ñu wan Sénégalais yëpp presque waa Leewtoo parce que xibaar bu jibee moom faw nga def ci ay tànk nuyu nuyoo soxna si bëgg naa la. ziar naa la. tur ba. Matu Jaxumpa. Mm-hmm. Mm-hmm. nekk biir fii laa nekk waaw. ñu continuer maa ngi lay ziar soxna si. yàlla yàlla na nga ziar. fleur wala. waaw waaw. waaw yaa ngi si jàmm. ça va yaa ngi si jàmm. tey dañu xëy jàng ci journal sunu làmb ba ni seen patron di Pape Thialis Faye wala suñu patron sax laay wax ndax maa ngi ci biir mu ngi dox Balla Gaye 2 ak Boy Niang ginnaaw boo ñu waxee li nga yore fii biir Leewtoo loolu est-ce que yëg nga ko. Euh, man maay assistante fii nii assistante Leewtoo ñu ngi fii mais daal ah xanaa ma bàyyi leen ngeen dem si DG bi rek laaj ko ba xam. waa moom dina leen ci mën a wax lu leer daal ak li ci nekk yëpp. Balla Gaye 2 ak Boy Niang moom daal moom daal moo leen si mën a wax daal li lépp daal li ci nekk waa waaw naar fii may ubbi nag xam naa ne biiru kilifa lay war a doon te xam naa su mu fi duggee moom waa ton maar maar kii mooy tonton Diaw tonton Diaw mbaa yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax a baax euh, suba si ñu ngi sant alhamdulilah tonton Diaw DCA Leewtoo production waaw dafa naa loolu la wax de tey dañu xëy jàng ci journal que ni da ngeen di dox combat Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 moo tax nag ñu bëgg ci ay leeral boo xoolee jël nañ képp ku fi nekk tey élément ci Leewtoo mais nag yaakaar naa kàddu gu mujj gi mu ngi nekk ci yow ak calis looy tontu ci loolu. waaw mais comme ni ñu leen waxoon rek ah maa ngi leen di gërëm dèjà di leen sant ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey ci kër gi euh, je pense que ñun suñu objectif mooy li ñu démarré woon rek daaw jéeg tëgg nañ fi ay combat yoo xamante ni. ñëpp ko rafetlu daaw ñu def pose parce que ñu ngi woon ci yeneen orientation yu ñu doon def bon ren nag décidé nañu pour dugaat ci làmb ji mais comme ni ñu wax rek su mbër yi raisonnable rek làmb bu ngeen bëgg rek nañ ko tëgg suñu xees suñu borom waaw mais nag lépp mu ngi dépendre rek ci li ñuy waxtaan ak mbër yi suñu si d'accord rek ñoom ci ay prix yu raisonnable incha allah dinañ tëgg combat yooyu. actuellement yéen a ngi démarrer ay mbër. waa ñu ngi waxtaan ñu ngi woo ay mbër di wax ak ñoom waaw mais suñu toll yi nag fësaleeguñu dara ñu ngi waxtaan ñu ngi waxtaan ak bëri yi waaw. <laughs> kontaan mën nañoo gis Thialis de PC euh, DC. léegi dem leen léegi ngeen gis ko waaw leen léegi ngeen gis yàgg kon léegi yegg si nañ ci bureau DC ginnaaw ñu ñu nuyu ko nag parce que moom moo <laughs> maa ngi lay nuyu DC. waaw ñu ngi lay fay Babacar. maa yaa ngi si jàmm. waaw ça va tey moom laaj bi benn parce que boo xoolee ci bunt bi laa duggee. bàyyiwuma kenn ñëpp laaj naa leen seen xalaat ci information boo xam ne dañu xëy gis ko kani Pape Thialis Faye mu ngi dox combat Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 yow mi yore kàddu gu mujj gi loo mën a leeral Sénégalais yi ci combat boobu actuellement. waaw loolu yéen moo koy yëgal franchement xoolaguma sa journaux yi mais je pense que yaa ma ko yëgal et depuis presque. temps bu bëri ngi nii doxuñu ay combat donc à part bu ñu doxee daaw saison bu ñu doxaloon yem ci mais combat bu doxuñu ko franchement waaw Balla Gaye sama frère la Boy Niang sama frère la mais daw ma ci kenn pour wax la ay combat donc Balla nag on a discuté juste si peut-être combat nii mais vraiment du loo xam ne wax naa staffam wala kii loo xam ne c'est c'est c'est c'est lu lu formel la quoi donc amuñu benn combat ba ñuy dox bon peut être xëy ñoom nga laaj leen fan lañ jëlee information boobu waaw euh, te aussi ki nga xam ne ñun parce que ñun daa na ñuy doxee mooy même bu combat am aussi am na ko koy dox te ka koy dox donc waxaguñ ci ak moom donc je pense que moom aussi doxu ci te démb si guddi la déggante nañ téléphone mais si leneen lañ nekkoon donc je pense que moom mën nga leen laaj ñoom ñi nga xam ne ñoo ko bind xam bañ organe de presse la mën nga leen laaj ñoom fu ñu information boobu. man li ma gis sunu làmb laa gis mais ñoom itam est-ce que euh, fan yi parce que fan yi dégg nañ ñu ne Max Mbargane am na ku muy doxal combat est-ce que du ñoom ci loolu lañ sukkandiku wala ñu seen investigation ci loolu ba yaakaar ne xëy na yéen yéen a ko yónni. non ñun yónneeguñ kenn honnêtement ñu ma yónneeguñ kenn. donc joxaguñu benn combat mais bu ñu jox combat rek incha allah nit ñi dinañ ko yëg. Leewtoo am na licence ren pour tëgg làmb. waaw dañ ut licence bon bu ma jëlee leen licence am ay jafe-jafe yoo xam ne. saison ren bi kon fas ngeen tëgg làmb. waaw fas leen tëgg làmb incha allah waaw. Balla bokk na ci say ref xanaa parce que dégg naa combat bu neex la. yi neex la Balla Gaye Balla Gaye 2 foo naa ne Boy Niang yàgg na ko topp di ko di ko di wut mais loolu ko affiche bu neex la ku ko tëgg tamit affiche bu baax la waaw te Boy Niang champion la mais aussi. c'est normal ko booy fu Balla Gaye toll mu ko ko ko indi ko ko indi niveau boobu donc ñoom ñoo ay champion lañu et je pense que affiche bu neex la boo xam ne peut-être sénégalais yi bëgg nañ ko te dina nekk lu neex daal waaw. Leewtoo euh, saison bi mu tëggoon ba génn ci daf ci amoon ay jafe-jafe wala. non non amuñu si benn jafe-jafe amuñu si benn jafe-jafe jafe-jafe amu ci c'est juste que à un moment donné aussi foog nga taxaw tuuti xool parce que lii moom du jeex. donc làmb du jeex donc tëgg làmb du jeex donc loo gis rek ndànk-ndànk la waaw. dina am laaj bu mën a laaj ci côté parce que dama gis lu ñu indi ci làmb ji at yi muy mbàllum pay per boobu yow en tant que kii noo ko gisee ci làmb parce que dafa mel ni promoteur yu bëri léegi ñu ngi ci jëm. waaw mais euh, système boobu système bu baax la système PPV je que système bu baax la ci promoteurs yi parce que comme sponsor yi ñëwatuñu donc il faut nit ñi trouver beneen moyen boo xam ne dina mën a rentabiliser seen investissement et que système boobu je pense que c'est un système qui est venu à l'heure parce que moment bu ñëw ni moment bu gën a baax moment bi nga xam ne tey jii sponsor yëpp retiré wu nañ ci làmb ji donc des difficile nga tëgg làmb gagné gagné si gagné ci xaalis donc bu PPV ñëwee aussi donc gab boobu nga xam ne la ñuy perte dinañ ko dinañ ko dinañ ko mën a rattrapé waat ci ci PPV bi donc système bu baax la je pense que maintenant nañ xool nañ la ñuy defee ba nit ñëpp mën ci am accès moo ci am solo mu nekk loo xam ne ñëpp dinañ ko mën a am accès pour seeraan ko waaw mu bañ nekk montant yoo xam ne tey jii pour nga seeraan ko wala pour nga am pour nga dugg ci day day jafe waaw mais je pense que li ma gisagoo muy jàll donc montant yu yu normal la nit ñi nit ñi aussi ñu ngi koy seetaan mais rafetlu a daal idée bi rafetlu naa système bi. kontaan nañ ci yow. ñoo ñoo ñoo ngi gën a ak ñi nga àndal.